mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd ngeen ànd ak seen seen bii di suñu média ñoo ngi amaat mbégte ak kontante di janowaat ak yéen ci seen chronique comme niñ koy defee alarba bu jot su waxtu bi jotee ñuy profité waale ci occasion bi rek euh, di wax rek ñëpp euh, ngeen baal ñu àq rawatina nii les internautes ñun ñoo ngi leen di baal suñu boor ñoo ngi ñaan yàlla may ñu ñu fekkee ko ay at yu baree baree bari ku nekk xam ne ni tey mooy alarba gu mujj ci euh, weeru koor bi ñoo ngi ñaanal ñëpp rek jàmm ju sax sutura ak tamit yàlla may leen ñu fekkee ay euh, weeru koor yu baree baree bari euh, ñi desoon ci li nga xamante ne ni moom mooy wàllum sociale ñi nga xamante ne ni dañuy liggéey ci ci ndimbal doomu aadama rawatina ni ñi nga xam ñoom ñooy néew di doole yi mooy ñi ñuy wooyle cas joxe woon nañ fay exemple ni mel ni Youssou Ndour moo ngi def lépp sans séntu ci intérêt Bougane Gueye Dany waxoon nañ aussi ci ki nga xamante ne nii moom moo di euh, Ousmane Noël donc tey nag dañuy ñëw rek euh, yey yàbbi yi ci tur ki nga xamante ni moom mooy Sophie Gueye nekk suñu sœur nekk suñu jigéen nekk quelqu'un koo xamante ne ni elle trop responsable même bàyyi yiteem maanaam bu ko neexoon tey mu nekk fii nii di maanaam di di def comme ni ko jigéen ñi di defee sañse bu rafet takkaayu rafet bon mais moom qu'importe moom li ko ñor mooy néew di doole yi nan lañ war a mën a def rek ba dundu donc loolu dafa am solo rawatina nii ci weeru koor ñu di ko félicité bu baax a baax a baax ci nomination yiñ ko nome di ko félicité bu baax a baax a baax ci li nga xamante ni moom mooy ndimbal yu mu joxe ci weeru koor bi ak laataa weeru koor bi di ko félicité bu baax a baax a baax tam ci tukki nemmeeku yi nga xamante ne moo ngi koy def ci ay gox yu fasantiku ci Sénégal lu mel ni Casamance ba ci Tamba ak feneen ak feneen tey nag ñi daal di waxtaanee jëmu joojee Sophie Gueye nekk koo xamante ne ni bu ñu defee taxaw seetlu ci moom ay atam bu matee vingt ans si la yem maanaam bu amee ñaar fukki at ci la yem at yi bariwul lool wante xalaat bu mu am ci réew mi est-ce que ku am âge bu ëpp bu mu am dina am xalaat bu mel ni moom di dimbale ay nit bu baax a baax a baax tax tey nag Sénégal tey chronique bi dañ koy tënk rek ah donc tey Sénégal tey boo jëlee lu tolloog téeméeri nit maanaam boo jëlee cent personnes xamal les quatre-vingt-quinze personnes du ñu exagérer nag ci chiffre parce que lu ñuy wax dañ ko xam dañ cee def taxaw seetlu gëstu ko boo defee quatre vingt quinze pour cent maanaam boo tànnee quatre vingt quinze amu ci kenn koo xamante ni loxoom jot na gannaawam wala lépp lu mu am rek làmbatu la wala bu ko amee tey eh, eh, njëriñoo ko tey suba day xëyaat dem doo dàqe ñu gis nag ki nga xamante ni moom mooy jëmm ji di Sophie Gueye am lu ko ñor lool mooy askan wi nan la ñuy def ba xiif bañ leen a sonal askan wi nan la ñuy def ba stress bañ leen a sonal moo tax ñu gis ko muy collecté maanaam di dajale li nga xamante ne nii moom mooy ay mbubb ay dàll ay ba ci lekk ak nu mu mënti doon ak nu mu mënti toll mu daal di ko yóbbul ñi nga xamante ni moom mooy ñooñu daara donc di def si ñooñu daara lu am importance la rawatina nii nag ci weeru koor bu ñu nekk kon mention spéciale Sophie Gueye ñu gis xale bu jigéen tu di wuyoo ci turu Sophie am li nga xamante ne nii wala bu ko matal lu jege na ko wala bu ko amee tamit ëppalewu ko vingt ans donc loolu xam naa dinañ ci ñëw ci commentaire yi internautes yi dinañ ci wax moom aussi bu ko déggee dina daal di tontu ci ay atam tamit kañ la commencé def ni ki mel euh, voilà donc moins de vingt ans ki nga xamante ne nii moo ngi taxaw di dimbale néew di doole yi Euh, yoo xamante ne dañoo ñàkk ba tax nag mu taxawu leen taxawal benn kuréel boo xamante ne ni fépp foo xamante ne ni rek ñoo ngi ci réew mi ak ci bitim réew nga dem ba ca Saraya ba ca Fongolembi dem ba ca Bofabayo dem ba ca Tambacounda surtout zone yu mel noonu euh, mu nekk ay zone yoo xamante ni ñu dara gëstu lañu seen hôpital yi doy na waar euh, moom nag mu am ñàkk dina def de toute façon ba dajale lu baree baree bari di ko yóbbul jëmm yooyee ki nga xamante ni moom moo di Sophie Gueye moo ngi dimbale néew di doole yi bu baax a baax a baax a baax moo tax man dama ko tuddee benn tur boo xamante ni benn tur bu extraordinaire la ñu am na ñoo xamante ni peut-être buñ ko déggee duñu xam exactement moo boobu la lay signifier la plus grande philanthrope la plus grande philanthrope donc tey nekk na comme tey niñ koy waxee euh, waay bon ngeen baal ma ci olof bi waay wal xaw ma góor buy dimbale euh, néew di doole yi am na nuñ koy woowee mais jigéen buy dimbale néew di doole tamit am na nuñ koy woowee mooy lii nii donc tey c'est quelqu'un koo xamante ne nii moo ngi jàppale askan wi bu baax a baax a baax a baax a baax mention spéciale à moom képp koo xamante ne yaa ngi def yaa ngi def ci wàllum social am nga référence am nga miroir ci ki nga xamante nii moom moo di Sophie Gueye ndaxte ni mu koy defee gisuma kenn ku koy defee noonu parce que moom ñëwul di yëkkati alal di jox ñooñee mais dafa ñëw pour yëkkati ndimbal lu ñu sol lu ñu lekk parce que nit ki bu fekkente ni am na alal dem jëndee ko lu mu lekk ak lu mu sol te xelam dalul amu benn sens donc mieux vaut nga ñëw assister ko fekk si ko dund ak moom uuf ay doomam sax. ñi nga xamante ne dañoo dem ba amee ay feebar moom jël na engagement seexluwul xoolu quoi que ce soit xoolu ndax ñi mën nañ ma wàll xoolu ndax feebar bi day wàlle wàll du wàlle day jël responsabilité am uuf jëmm yooye waxtaan ak ñoom di leen jox ñuy lekk di leen jox ñuy naan donc tey nag jafe na nga gis jëmm jooje fii ci réew mi parce que tey lépp ko def rek dañ koy poli dañ koy dañ koy dañ koy raxaaleeg li nga xamante ni moom moo di politique boo gisee nag ñu tuddee Sophie la plus grande philanthrope maanaam moom day def te séntu ci benn intérêt day def mais séntu ci benn intérêt lu muy def da koy def ngir yàlla moo tax te buy wax nga xam ne ku am conviction la buy wax. waxam dafay charmer ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, néew di doole ñi nga xamante ne dañoo ñàkk te ñàkk nekk na lu extraordinaire nekk na loo xamante ni dafa garaaw a garaaw a garaaw ba nga xamante ne ni tey jii nii buñ amoon yeneen ñett ñu mel ni sofi wala yeneen ñeent ñuy sànq fii ci réew mi kon gëm naa ne kon tey gox yu fasantikoo yu nekk ci àll yi dinañ daal di yëg seen bopp te sofi gay yemul ci lool rek fii ci banlieue bi gis nañ mu daal di fa dem wasaare fa li nga xamante ni moom moo di ay ndogu parce que nag groupe suñu média dafa am lu ñu wax dañu ne durant mois de ramadan bi yëpp li nga xamante ni moom mooy suñu ligne éditoriale ci wàllum chronique yu ñuy def pendant toute l'année onze mois yëpp ñu nekk di def ci li nga xamante ni moom mooy wàllum politique politique politique day baax nag yàlla bu ñu wàccalee weeru yërmande weeru xalaat ñu daal di soppi xalaat def li nga xamante ni dañuy def lu baax foog ñu leen di fësal am na ñoo xamante ne bëgguñ sax ñi filmer ni ki mel wante nag di ci wax tamit da leen di yokk courage dafa nekk loo xamante ni lu am njëriñ la ñoo ngi vraiment di ko féliciter di ko tuddee li nga xamante ni moom mooy la plus grande trop donc nekk na quelqu'un koo xamante ni tey di ñëpp ko war a ñaanal yàlla man personnellement maa ngi ñaan kilifa diine yëpp moo xam bu Njaasaan bi bu Cenaba bi bu Laayeen bi euh, Medina Cheikh Ibrahim Touba Mbacké di ñaan daaka médina Gunaas bi nga xamante ñoo ngi ciy jëm ne ñu def ay dog ñaanal ko yàlla bu baax a baax a baax ndaxte nag ku jara ñaanal la elle engagé engagée elle pour soutenir euh, les cas sociaux donc bu ñu nekk les ka social mooy ñi nga xamante ne ni tey ñoom dafa am lu ñu ñàkk ñoo ngi koy félicité bu baax a baax a baax a baax comme niñ leen ko waxee woon ñoo ngi leen di baalu ak encore de plus di baalu ñëpp àq di wax ne rek alarba bii di ñëw incha allah rabbi dinañ changé waat suñu ligne éditoriale nekkaat ci li nga xamante ne loolu lañ nekkoon ñoo ngi wax yàlla nañu yàlla may ñu fekkee ay at yu bëree bare bari di gërëm équipe technique bi yëpp ci njàppani bi nga xamante ni ñoo ngi koy jàpp ci liggéey bii ni nga xamante ni moom mooy chronique bi ñuy amal chaque alarba ñoo ngi félicité encore ki nga xamante ni moom moo di Sophie en tout cas mention spéciale à moom ñoo ngi koy ñaanal yàlla di ko ñaanal ay wayjuram di ko ñaanal ay rakam ak i magam di ko ñaanal ay jegandaalem nañ ko yokk ñaan loolu aussi dafa am solo ndaxte nag ñaan rek mooy yóbbu nit ki ci kanam en tout cas mention spéciale et passez une excellente excellente excellente euh, fête Korité donc ñoo ngi ñaanal ñëpp ñëpp yàlla na ñëpp korite ci jàmm loolu mu am solo donc koo xamante ne bàyyi na ay itam yëpp fas yéene bëgg sénégalais yëpp korite ci jàmm ak salaam ku nekk bañ a stressé wu donc moom ci point boobu la nekk te ñu ngi ko ciy félicité bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf di ñaanal équipe bi nga xamante ni ñoo ngi bokk ak moom liggéey muy équipe bu gis-gis lu mel ni ñoom Père Mbaye Ngoné lu mel ni ñoom Sofia Diakhaté Père Mbaye Ngoné moom tamit ku déglu ay waxam rek di nga xam ne xadar lay waxee te li muy wax lépp lu tegu la te c'est quelqu'un koo xamante ne ni il nous parle toujours euh, de la tradition te sofige ñooñu jege ko donc buñ koy yokk xalaat rek dina am solo ñoo ngi félicité toute l'équipe gis-gis ndaxte ñoom ñoo gën a tax ñun ñu xam ki nga xamante ni moom mooy Sophie en tout cas merci beaucoup et passez une excellente et passez des moments inoubliables ci fête bi nga xamante ni moom lañ jëm muy Aïd el muy leelatu muy feetu korité en tout cas merci beaucoup jërë ngeen jëf